Dakar Sivi nuyu nañu leen bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay alors comme ni ngeen ko gisee a jamono ji doy na waar meurtre yi bari nañu ku nekk ngi say ay garde ngir bañ rek xeetu ñawteef yi nga xam ne moo fi am mu dal mbaa mu dal sa njaboot geneen kawteef moo dal yi am fii ci Sébikotane benn xale bu yoo ci turu Adama Diop ci juróomi at moom la ñu fi faat ki ñu njëkk jàpp ci mbir mi nag di wujju peccor go yaayam fii ñu taxaw ni fii la ñu ko faate ba pare nag ñu daal di koy wër fii la ñu ko mujj fekk dañu daal di rek dugg ci biir kër gi waxtaan ak ki nga xamante ne ni mooy rakku papaam ñu mën a xuus rek ci li nga xam ne moo di information yi ñu ci mën a am sëñ bi maa ngi lay. waaw maa ngi lay sant maa ngi lay fay bu baax. la ak sant. Matar Diop. Matar ndax mën nga ñu ndax mën nga ñu dikkalaata rek ci anam wi seen doom réeré ak ni ngeen ko fekkee mu ñàkk bakkan. waaw maa ngi maa ngi leen di nuyu ba di leen gërëm di leen sant ci teewaay bi ndax àdduna bi dafa doy waar fi mu toll nii te jamono gi dafa tërëti. Euh, ki démb ci guddi si 17h laa wàcc 16h 17h mooy ci laa wàcc bi ma wàccee ma fekk yaayu xale bu ñu rey mu ngi toog ci mbedd mi ak euh, beneen xale bu jigéen bu ñuy wax asungom ma daal di dugg ci biir bi ma duggee ci biir damaa dugg sama néeg ku ne xaaral ma toog tuuti noppalu bi ma toogee noppalu xaw a jàppante ay nelaw nelaw ay trent minutes 40 minutes ma daal di jog génn génn ci mbedd mi oo asungom bi may dugg maa ngi fekk ndaw si mu ngi sumb fóot di fóot ay yéreem ci digg kër gi déedéet. nga xam ne moom lañ jàpp moom moom lañ jàpp mu ngi sumb fóot ci digg kër gi di fóot ak ñaari doom ñu ngi toog bi ma duggee bi ma génnee moo woo ne ko kaa jëndal ma biscuit Assou dem ma dugg ci duus bi sangu ma sangoo boobu 18 heures jot na passé na sax 18 na ma dugg daal di fay 5 heures ma fayee tàkkusaan bi ba pare jël biscuit bi daal di ko teg noonu daal di génn ma génnee damaa dem si jaaykatu café bi jënd fa café toog di naan café bi ma toogee di naan café euh, ci la moom mu génn ay 19 heures ay 19 heures timis mu ngi waaye jot parce damay noddu si jàkk ji moo tax bi ma génnee toog ci euh, bunt bi moom moo ñëw ne ndaw si dogal wëri sa doom. moom xale bu jigéen xale bu jigéen bi ñu jàpp moom moo ñëw ne ndaw si sama kanam jógal wëri wëri sa doom xale bu jógee dem jaar nii dem xool gisul mu ñëwaat ne ma papa ma tardé aada laa doon wër. damaa toog ba si àgg asufaal ne ma jógal wëri jógal wëri xale bi ma ne ko loolu nu mu mën a demee noonu bi ma wàccee ba léegi mënoo leen ma ko woon wax mu ne ma man yëguma ci woon dara moom ci boppam mu dem di wëri xale bi moom xale bu ki ñu jàpp ñëw ci man ne ma man di damaa demoon wéef bo bu ma demee wéef ba ñëw doomam bu jigéen moom ki ñu jàpp doomam bu jigéen moo ko ki te doon fii di yendu fii di nelaw jox na aada faay aada mbaay cent franc dem na jënd euh, caakare ba yóbbu na ko ma ne ko déedéet ki fii di nelaw piisam la doon récupéré fii ci Pape Modou si wari bi piisam la doon récupéré fii fii la jëlee oto taxaw na fii la jël oto sama kanam dem loolu maa ci teg sama bët bi mu waxee loolu ma ne ko am waaw man daal di boobu ñu ngi noddu timis ma daal di dem julli ci timis ma jullee timis ba génn di ñëw génn jàkka ji di ñëw ci la ma moom siis o borom bitig bi nekk fële ne ma kaay xool bi ma ñëwee mu ne ma asufal moom a xale bi ñoo àndoon ci la ma commencé di ma wan vidéo yi commencé ma di ma wan vidéo yi fi mu ànd ak moom man tamit ma jaaxle mënatuma wax amatuma lu ma ciy wax. loolu ay yan heure la moom yan heure la génn ak xale. yan man xaw ma fekku ma fi parce que man ay 4 laa wàcc bi ma wàccee fii laa ko fekk muy fóot ay yërëm ci digg kër gi waaw. man ginnaaw loolu itam bi ngeen commencé di wër xale bi ndax moom àndoon na ci wër. déedéet moom fii la toog di wër yaa ji moo ko audio ne ko bu ma la gisee nga wër di ko diggaale ak man yaa ji moo ko oo téléphone wat audio ko waaw ne ko moo la gisee nga wër dinaa ko digaale ak man audio yaa ngi sama portable waaw. moom ak yaayu xale bi nga xamante ne moom la ñu faat amutoon benn dagg-dagg seen de nekkin ci kër gi ndax neexoon. Euh, fan yi passé yëpp dañoo amoon problème parce que affaire njël moo leen moo leen boole woon waaw waxulook moom ba keroog la ko ne jógal wëri sa doom. lay door di wax ak lay doog di wax ak moom. Euh, am nañ ci mbetteel moom nañ mbetteel lu ñu mbetteel trop parce que suñu jabaru jarbaat la moo ko takk indi ko ci kër gi wax dëgg yàlla man xaw ma ay mbokkam Mauritanie la ko takkee indi ko dëgg yàlla man xamalu ma ko lu bari waaw xamalu ma ko bari. mbir mi jamono ji mu ngi ci loxoy yoon. waaw mu ngi ci loxoy yoon waaw mu ngi ci loxoy yoon ah. lan ngeen si ah, man moom mu toll nii ah, mënu ci wax parce que d'accord ci kër gi laa dëkk euh, kilifa laa ci kër gi mais tamit aw ma ci ndogal da yi. xale bu góor bi mu ngi fi waaw papa xale bu góor bi am na xam naa dina jël ay mesures moom mooy dem ci yoon ak ñoom waaw man wëri naa ko daal gisuma ko dem naa ba Ndakaaru wër naa foofu yëpp joxe message bi fépp def ko ci face bi lancé ko ci face bi yooyu loolu laa ci am moom tax ma wasu si ak daal def ko ci. jamono ji ak ni mu tëradee li nga xamante ne nii moom moo am seen kër gi tey yàgg nañu di ko nemmeeku ci dëkk bi tey lan ngay ñaax sénégalais yi. ah ñu fas ñu gën a euh, bu gën a bàyyiwaat xel suñu njaboot gi nag. ndax fi mu toll ni àdduna bi jaxasoo na mun nga dëkk nit si biir kër mu mel noo xam ne doo ko xam parce que xol dafa sori si doomu aadama kenn mënul xam ne mu mel waaw dafa làqu ci doomu aadama kenn mënul xam nit ki xol bii la yor te nit mun nga dëkk moom mu mel noo xam ne doo ko xam ba ëllëg mu indil la ñaawteef wax dëgg yàlla kër gi cosaan la si sa waxtaan leneen waroon na fi mun a feeñ ba mu des lu mel nii wax dëgg yàlla ñun metti nañu trop man sama jëmmi bopp man metti na ma man de dem wëri ji ba ñëw dem Dakar wëri ko foofu àcc ban ñi wër ba ñëw si kër gi gisanteeg benn paawu maara mujj am lu mu ma defal ci mbuba bi ne ma boo ko weeree dinañ la léegi ne xale bi feeñ na ba ma xoojee mbubb mi wis ndox mi si biir kër gi weer ko damay dugg si sama damay dem bay dugg sama néeg rek ñu woo ma ne ma kaay am na benn xale bu ñu rendi fi bi ñu ñëwee kenn euh, gendarmerie dañoo téye ñun ñëpp bëgguñu kenn gis ko kenn gisu ko wax dëgg yàlla instant yooyu kenn mënu si woon joxe lu leer waa ñun tamit amuñu si woon lu leer ba biñ ko jëlee bay dem ci lañu ñu oo papa maamay xale bu góor bi ci la ko gis moom moo ñu confirmé na moom la waaw après si la dégg ci wax yi ñu ne dañ koo rendi man bi ma xëyee tey suba laa ñëw fii fekk lii ñu suul ko nii si laa doo xam ne dañ koo rendi daf koo rey xaw ma nu mu nu mu ko def dëgg yàlla métti na trop métti nañu lool métti nañu trop parce que dëkk bi fi mu toll nii il faut que ñu jël si ay mesures waaw ndax lii ñaawte fii dañoo dafa bari léegi dafa bari léegi dafa bari léegi trop trop trop trop trop war nañu jël ay mesures dëkk bi it war nañu war nañu jël seen garde ndax lii nii ñi koy def ay nit lañ comme ñun ku nekk mun na dal si ku ne lii dal nii mun na dal ku ne dañ ci euh, farlu bu baax jéem a jël suñuy garde bu baax loolu daal laa ci laa ci am lu ma ciy doole waaw la ak sant. maam Aminata ndax mën nga ñoo dikkalaatal ci kan mooy Adama Diop mi nga xam ne mooy sa sët ñu faat ko. Hmm. Adama jóob sama doom bu góor moo ko jur sama sët la juróomi at la toll mu ngi woon ci kër gi da jàng alxuraan jamono yi paase nag ndoxum siti moo nekkoon ci tànk yi. bi muy génn kër gi di dem sax ay kawas la yor mënul dox sax bu baax ah léegi nag li ngeen may laaj li ma ci xam rekk laa leen di wax bi ma demee julli ji tisbaar ba ñëw damaa jël sama añ toog di añ maa ngi toog jàkkaarloog moom mu daw vitesse mu daw witees génn kër gi bi mu dawee vitesse génn kër gi ah bi ni mu demee rek laa la xool caméra bi li mu génne rek laa leen mën a wax ah, benn xale bu jigéen bu dëkk ci biir kër gi fi lay séy li caméra bi wone xale bi moo jiitu xale bu jigéen bi moo jiitu boq doomam xale bi sama sët bi daw topp ci ginnaawam caméra surveillance bi wone ko moom la wone mu continuer continuer xale bi daw topp ci ginnaawam mu moom mu continuer di dox xale bi daw topp ci ginnaawam ba mu jàdd ko ñi coxo bi léegi bi mu koñ bi bi mu jàddee koñ bi ci la ànd xale bi continuer dem caméra bi wane waatu ko nag boobu daal lañ ci mujjee xam dara. ay ngeen dégg ne xale bi gaañu Euh, xale bi ñun jour bi mu ko jour bi mu demee ñun dañu doon def recherche ay boori ñi ngi koy ñi ngi yëg xibaar bi daal ñi ngi yaayu xale bi daal nemmeeku na ne ay 18 doomam gisu ko léegi fekk man damaa génnoon man fekkuma fi nekkuma fi man damaa génnoon ay 18 heures ñu woo ma ne ma ndax Adama Mbaye àndut ak àndul ak yow ma ne leen déedéet àndu àndul ak man. ñu woowaat ma ne ma Adama Mbaye seet nañ ko fii yëpp gisuñu ko ci laa daal di jóge fi ma demoon daal di ñëw ci kër gi ci laa commencé def ñu ñuy def reserce bi ma woo papaam fekk mi ngi jam ñaajo léegi papaam daal di ñëw ñu commencé wër dem nañu ay kip kip dem yaam dem na ay dugaar wër nañ daal koñ bi yëpp gisuñu ko ba guddi ñu ñëw toog fii lañ toog ba bët set kenn nelawul léegi nag démb it ñu xëy ci suba gi gisuñu ko ñu toog ñu dem xëy dem wari gisuñu ko ci lañ jël si waat toog ci kër gi ba ci guddi daal la ñu soog a dégg rumeur bi ñu ne am na am na ku ñu rey fële ci tabax bu eggul fële ah ci lañu xam ne xale bi la waaw loolu daal laa ci am. ki ñu wax ne moom lañ ci ki ñu wax ne moom moo àndoon xale bi di wuju peccoor goo yaayam ndax dafa amoon dagg-dagg digganteem ak yaayu xale bi. déedéet amuñu benn problème ñoo am benn problème amuñu benn problème waaw parce que yaayu xale bi moom amul benn problème waaw. Euh, bi nga xamee ne yéen a ngi wër xale bi moom taxawaayam lan la ci woon. bi ñuy wër xale bi moom gisuma benn taxawaay bu gisuma ci moom benn position boo xam ne def na ko ci seetlu ma ko ci daal parce que boobu temps man maa ngi wër sama sët maa ngi toppatoo samay mbir man gisuma benn kii daal waaw gisuma benn benn lenn lum ci def daal taxawaayu ki nga xamante ne mooy waajuram bu góor lan la ci. waajuram bu góor tamit amu ci benn taxawaay dañu gëm yàlla rek xam ne yàlla moo ñu ko joxoon réer na ñi ngi koy wër ci diggante bi yàlla jël na bakkanam ah ñu gëm yàlla rek sibsane kenn waxuñu kenn loo xamante ne nii yoon daal rek la ñuy bàyyi mu def liggéeyam waaw. yoon instant bi lan la leen wax. dara. parce que man démb demuma woon gendarmerie fii laa toogoon waaw gendarmerie mi ngi def liggéeyam waaw. amoon na mag wala rak. Ada Ada mooy mag mooy taawu papaam am na ñaari rak. Mm-hmm. ki nga xamante ne nii mooy wujju peccor ga yaayam bi eh, police ba mu ko jël see yéen naka ngeen def ndax bett na leen. ah kooku gendarmerie jël si wu ko sax ci suba. maamam bi mu seetaanee kii bi vidéo bi ba pare ci lañ ànd ak moom dem gendarmerie mais gendarmerie ñëwul jël si ko. ñu ngi lay masawu bu baax di la jaajëf. Mm-hmm. Mm-hmm. alhamdulilah. internet Dakar Buzz comme ni ngeen ko gisee lii moo di kawtef bi nga xam ne rek am na fii ci Sébikotane fekk nañu fi wajuru góoru xale bi nag ak ki nga xamante ne mooy wajuru mu jigéen waaye ak nakkar bi dal seen kaw mënuñu leen tàllal sunu micro ba tax na rek waxtaan nañu ak papam bu ndaw waxtaan nañu it ak maamam ñu leen toppalaat bépp xabaar bu ci bawoo ñu leen di jaajëfal